asalaamaaleykum mbokk yi nga xam di seetaan seen télévision Leral TV ak Leral point net tey ñu leen di dalalaat ci seen émission mais les voilées sont les plus belles mais les voilées sont les plus belles bu ñu ko waxee nag mooy émission bi nga xamante ne moom lañ jagleel ñi ngay ñiy muuru jigéen ñi nga xamante ne nii dañuy muuru euh, rawatina ñi nga xamante ne nii ay entrepreneur lañ ay porteur de d'initiative lañ ak itam ay porteur de projet tey nag ñu invité suñu plateau du ma leen wax dara di ngeen ko découvrir léegi léegi laata ñu ko ci waxtaan bi dañ koy bàyyi mu nuyoo ah nuyu ñi nga xamante xamante ne nii ñoom ñooy seetaan euh, ñu ngi lay nuyu soxna si. Euh, soxna Mariama lay fay bu baax la remercier bu baax tamit ci dalal bi ma dalal fii nii euh, waa Leral TV ñoom ñëpp di leen remercier daal waaw ginnaaw bu nuyu téléspectateur Leral TV ñëpp bon nuyu naa leen ziar naa leen. alors euh, tey nag xam nga ne yaa ngi si seen émission Mes Valeurs sont les plus belles. Ah, waaw macha allah tey moom <laughs> buñ doon wax dañ naan ne yow yaay belle du jour yow yaay de toute façon voilée moom ñëpp déjà dañoo rafetlu. waaw macha allah tey nag laata ñu gën a xuus ci waxtaan bi wax ñu kan mooy Oumou Hawa. Mm-hmm. um Hawa mooy benn ndaw boo xamante ne ñu ngi ko gën a xamee tamit ci uh, umuna bu salsabil wala umuna Sweet Voice dëkkee fële ca Guédiawaye uh, origine guinéenne de nationalité sénégalaise. ah yow mm-hmm. africaine nga kon. <laughs> voilà africaine la. est-ce que mën nga ñëwal tuuti ci sa parcours scolaire. waaw man sama parcours scolaire sama sama kii nii. Euh, sama parcours lycée maa ngi ko jeexalee fële si lycée Seydina Limamou Laye après bi ma fa jógee ci laa def sama formation en santé euh, ci infirmerie bi voilà instant yi en même étudiante la tamit euh, ci infirmière bi. ah d' accord da nekk di def stage en même ngay nekk à l' étudiante à part ça lan moo nekk sa activité phare. ba bon sa activité yi may def à part santé bi aussi artiste compositrice la. Euh, di yëngu tamit ci wàllu way bi et tout ça euh, voilà. ah dégg ngeen loolu étudiante ah infirmière en même temps euh, en même temps chanteuse ah. d'accord léegi Oumina pourquoi la chanson. pourquoi la chanson bon. je veux dire que benn moyen la bu may permettre ma mën a ma mën a exprimer samay sentiments ma mën a wax ak euh, nit ñi mun a tamit di def samay participation ci yenn yi nga xamante ne mu ngi xew ci société bi loolu moo tax ma choisir euh, chanson bi parce que tamit benn côté euh, sama sama passion la daal looloo tax ma ma ma soisir ko est-ce nga ñu comme que émission baa ngi soog a door léegi nag boo fi tuddee waaye rek ñun xam nga dañuy bëgg prouver <laughs> léegi nag su defal ñu benn benn benn kii bu ndaw rek laata ñuy continuer waxtaan bi. d'accord amul benn problème euh, bon dañuy laal ci nabi rek. comme ah, fan yi temps yi moom moo nekk. moo nekk voilà toute façon chaque jour moom mooy xew moom mooy xew mais dafa gën a mais fan yi dafa waa coow dafa gën a bari. voilà ah, c'est ça manuma way man mi. teewaayum ma suñ soppe bi moom ci suñu xol yi ndaw li jubal ndaw ya rasulallah ya habiballah moom mooy ki fi gën mooy suñu royukaay mooy ki leen mën di suñu weeruwaay moom mooy ki fi gën mooy suñu royukaay mooy ki leen mën di suñu waay di suñu weeruwaay mooy suñu royukaay macha allah moom sama yaram baa ngi daw xam naa ne <laughs> ñii seetaan tamit dinañ am même impression bi wala lu ko ëpp macha neex na trop voix bi neex na lépp mu ngi fi euh, da ngay faral chanson euh, religieuse kese ngay def wala da ngay woyaale tamit ci lépp lu xew ci hmm. société bi. bon waaw mën naa ne damay woy lépp loo xamante ne ci. Euh, mu ngi ci mu ngi xew ci société bi donte ni quatre-vingt pour cent yëpp ci religieuse lay nekk mais tamit ñàkkul ni li xew tamit ci société bi dinañ ci participer di def di conseiller jeunes yi di leen ñaax di leen euh, di leen tamit euh, wax li nga xamante ne moom moo leen métti tamit genre porteur de porteur de voix loo xamante ne métti na société bi wala am na lu xew lu jaaduwul loolu yëpp dañ koy faral tamit di ko wax à travers notre voix comme comme yenn façon way ngeen wayagum pour euh, euh, jeunesse bi wala pour société bi boo xamante ne bokkul ak euh, mhm, religion voilà comme ni ma doon waxee rek xam nga am tamit ay son yoo xamante ne comme ça dool delloo njukkal sa yaay pour jox tamit jeunes yi conseil ñu ne leen nañ respecté seen yaay naka lañu ñu war a nekkee ak seeni parents et tout am na tamit benn son boo xamante ne ci yaay la eh, <laughs> ma tàmbali di la woy nan yama ëmb juróom ñeenti weer wax ji koy nga def ci man moo ma gënal yaay booy tax na ma fental la way di la wax fi nga tollu ci man sukku di ñaan buur bi aar la ta musal la ci seytaan bëgg naa la sama biir yaa ma yar def ci man lu baax bëgg naa la sama biir xol te te nga ma ci njub lu baax sama yaay yow sama yaay yaa ma gënal lu samay yow oh sama yaay duma am mukk lu la doy nga sutura kër gi ba tax kenn xamalu la yaay taaloo sol lu baax balu rafet lépp ngir say doom sama yaay bëgg naa la sama biir xol yaa ma def ci man lu baax bëgg naa la sama biir xol ndax tete nga ma ci njub lu baax. macha allah dañuy daal à travers way boobu noonu ñu delloo si njukkal suñu ay way jur suñu yaay maanaam dama bëri ay yaay. duma duma duma duma lim. <laughs> macha allah dama ay yëpp en tout maa ngi leen di delloo njukkal ci mhm. way bi am na solo ak yaay yëpp yi nga xamante ne ni ñu nekk di ñuy seetaan. ñoom mhm. xawaa yow. Mhm. booy way sa sa sa <laughs> dafa am loo seex en bu nekk sa bopp parce que man comprendre ma ah, ah. non sax ñu dara sax. non non xam nga way parfois nit artiste dina mën woy mhm. mais souvent way yi dañ koy accompagner ak ay instruments pour mu neex. Mhm. mais yow da ngay way nii rek comme ça nii c'est quoi le secret. <laughs> bon secret bi travail la rek parce que nit ki moom loo travail rek gannaaw don bu la yàlla may. li ci des da nga koy gën a travailler muy gën a améliorer wu à chaque fois bon liggéey la rek liggéey rek la ah, laaj. voilà ah, <laughs> man de xam naa dinaa ñëw def si formation daal parce que man sama baat <laughs> su ma woyoon xam naa ne. non yow sama allah. <laughs> alors euh, way yi nga xamante ni euh, moom nga fi moom ngeen di way ak yi nga xam moom nga jot a way fii. Mhm. kan moo koy bind. bon ñun nag suñu way yi d'habitude artistes yi ñoo koy bind. donte ni des fois nag dinañ jël ay way yoo xamante ni ay bind mag ñu baax yi fi nekkoon la. yoo xamante ne dañ ko fay teg dañ koy jël wolofal ko daal di koy woy am na yoo xamante ne nag ñun ñoo koy bind te gannaaw buñ ko bindee ba pare comme que groupe lañ dañuy toog sañu biir càmbar ko waxtaan si xool naka lañ koy gën a tëggee xool naka lañ si gën a gën a gën a améliorer xool les mots adéquats ak thème bi et tout ça euh, voilà je peux dire que équipe bi équipe bi bi la daal waaw je peux dire que équipe ah, bi mooy mooy bind groupe ngeen boo mhm. xamante ne nii dafa am ay ñi ñooy bind wala nan la groupe bi nan la composé waaw bon troupe bi moom ñëpp mën nañoo bind ñëpp mën nañoo bind gannaaw nag boo bindee ba pare danga koy indi teg ko sur parce que xam nga xel du mat te tamit euh, di gën a tamit xool ñi nga xamante ne ñoo la wër ñu dolli la xalaat dolli la xel loo tamit da koy gën a enrichir parce que mën nga am mën na am benn euh, par exemple dara xew ci société bi nga bindee ko ci xool bu xol bu kii parole yi xaw a dëgër boo demee ci koo xamante ne dina la conseil dana xam ne ah kàddu yi de su génnee mën na jur nangam kooku mën na la ne kàddu bi dindi ko nga def si beneen kàddu bu gën a woyof et noonu lañ koy defee. ah mooy groupe bi ngeen. mooy groupe bi waa ñun ñëpp. artistes yi groupe bi en tant que femme. Mhm. nan ngay def ba imposer wu si groupe bi. parce mhm. que ah dëgg neexul da ngay fës. bu mhm, baax a baax ci seen ay kii nan ngay def ba imposer wu loolu. ma ni imposer la sax mais. Euh, respect la rek respect laay wut man parce que le respect est réciproque donc nit ki boo ko joxee cër rek moom tam dala koy delloo te vu que suñu parent yar nañu yarin goo xamante ne fépp fu ñu dem dañ fay mën a nekk donc dañuy ñëw won respect won fulla won jom euh, waaw wane wane tamit talent parce que tamit góor baax na jigéen baax na nekkul ni boo nekkee jigéen rek toujours da nga war a nekk ginnaaw parce que man des fois mën naa ni fu góor taxaw dinaa fa taxaw lu góor def benn dinaa ko def benn wala sax mu doublé ko parce que tamit waa parce que tamit jigéen nekkul ni danga jigéen nga rek que da nga faible wala da nga war a utal sa bopp limite et tout ça mais que da nga a ñëw wane ful la fayda jom ak surtout le respect voilà à part euh, groupe bi nga bokk ngeen di mhm. def ay way di def ay tournée est-ce que yow mhm. euh, yaa ngi xalaat ci sa carrière euh, solo mhm. solo comme yow dong waaw bon loolu aussi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy travailler parce que soo xoolee bon group bi tënkul kenn parce que ku nekk am nga droit aussi xool loo xamante ne mooy améliorer sa niveau soo xoolee récemment am na benn cover bu ma xaw bu ma defoon hommage si Tafa Jara bi boobu man kese la woon nekk woon avec le group euh, et tout ça donc euh, euh, donc ñun tamit permettre nañ ñu à ce ñu mën a la la ñu foofu la la ñu foofu <laughs> bul wax rek jàll kay <laughs> waaw yow Cheikh Fall may ñu leer leer ñun ñu gindow borom nombay baat yow may ñu leer leer ñun ñu gindow yow Cheikh Fall aborijal may ñu leer borom nombay baat ya may ñu leer leeri leer ñun ñu gindoo when I was young I did not know but by the time yes I have learned so much dreams cannot be drowned. Tu as eu geroval. lii moom neex na su ma yoroon fii sama carte ba joxe addiya si bi alors seen kii neex na trop ay li nga wax am na solo bu baax a baax mais seeni ay concert yi ngeen di def clip yi ngeen di tourner ban eh, financement ngeen koy jëlee da ngeen am ay partenaires wala yéen da ngeen am seen eh, caisse personnelle wala à travers clip yi ngeen di def mooy porter fruit ba ngeen dem ba am ci lu ngeen di sutur waaw boo soo xoolee moom euh, ñun moom euh, comme que musique bu ñuy def nit ñi consommé guñ ko comme nu mu waree mais alhamdulilah ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci avancé bu baax parce que suñu objectif ñu ngi koy waaj a donc euh, dama dama naan ñu nekkul ay partenaires sax lañ am. Euh, ay collaborateurs lañ am parce que amuñu kenn koo xam ne moo nekk si suuf di financer suñu di financer suñu projet yëpp wala lépp mais dañu am ay collaborateurs yoo xamante ne suñu amee ay événements wala ñu am ci leen lu ñu nekk et tout ñoom ñoo ñuy dimbali ba ñu mën a am euh, les outils qu'il faut euh, ñoom ñoo ñoom ñooñ ci jàppale ci ci lépp loo xamante ne li ñuy li ñuy def laaj na ko rek ñoom buñ ko amee dañu siy dimbali teg tamit ci yoon bi di ci jàppale bu baax di profiter waale di leen nuyu ñoom waa Amana waa Ris Al Wahda ak ñeneen ak ñeneen daal waaw ñoo xam ne lu ñu bëgg tamit ñuy tudd seen tur. tournage clip bi nan lay nan lay nan di demee. bon tournage clip bi moom bu ñu amee benn projet clip euh, des fois dina xaw a métti tuuti parce que duñu duñu mën a duñu mën a am. Euh, bon moyens yi nga xamante moom la ñuy soxla dëgg dëgg dëgg pour qualité bi ñu mën a am mais bon alhamdulilah ku nekk da xool li la yàlla wërsëgalee nga teeloolu ba leneen ñëw donc bu ñu waree def tournage clip ñun ñëpp dañuy toog waxtaan ku nekk xool fan nga mën a apporter ñu xool ñu def ko benn genre travail d'équipe ku nekk yow sa tuuti sama tuuti ak tuuti groupe bi yëpp ñu daal di koy dajale ñu mën koo réaliser. ñoom dégg nañ la ñi nga xamante ne nii ñooy tourné clip c' est un message ah parce que lii euh, lii euh, est très important. Mm-hmm. talent bu mel nii nga dégg ko muy way nii way way bu neex sans sans instrument sans dara et pourtant dafay neex bu baax a baax c' est dommage que ñu bañ a am euh, possibilité pour nit yi mën ko consommer comme ni ñu ko bëggee. Mm-hmm. Ah, alors kon na ngeen gaaw ñëw daal. daal di <laughs> alors Hawa say ambition lan la. bon man nag samay ambition mooy euh, nekk inter nekk international avec le groupe aussi nekk nekk ay artistes yoo xamante ne wala groupe boo xamante ne dina wër le monde entier. loolu mooy loolu mooy sama ambition côté côté côté musique bi côté nag euh, yeneen yi may liggéey aussi mooy li ci mel ni santé bi wala ay euh, euh, marketing relationnel yeeg yooyu noonu tamit bëgg naa ci atteindre benn niveau boo xamante ni dinaa mën a bon réaliser sama rêve yi nga xamante ni am naa ko mooy jàppale ndaw yi nga xamante ni ñu ngi ci ñu ci réew mi créer des emplois et tout ça donc on vise dans l'international voilà c'est ça allah amiin amiin voilà <laughs> c'est ça alors euh, xawa ma lay waaj a laaj nii nag ku ma ko mos a laaj mu ne ma mu ne <laughs> ah baa rëyul rek ah, mm, am nga amoo borom kër man ah déedéet amaguma borom kër waaye <laughs> yow xam naa ne gars yi war nañ la sonal ndaxte ah macha allah tu es belle et tout ça en plus euh, kii bi ngay def way bi neex na tu as tu as beaucoup d'atouts. donc mhm. waxal rek gars yi ñu xam nga rek dañuy kii di rek ay soppe lañ rek. <laughs> ah ñoom ngay non ay soppe lañ rek. ah dina <laughs> dina dina ñëw incha allah. Mhm. ngay wax ñi nga xamante ne nii euh, surtout fan yi dëkk bi jaxasoo na. Mhm. jeunes yaa ngi dee si gaal gi. ñii di jël ñii buñ ñu ñëwee euh, ñii réer dootu ngeen gisati. ñii dem ba àgg ñu delloo si leen ñu am désespoir bu méttee métti boobu noonu ñàkkum xëy bi nekk ci dëkk bi ah, crise boobu noonu ñu nekk fan yi loolu euh, lan nga si wax. waaw tout d'abord damay jaale ji nga xamante ne seeni mbokk wala seeni rakk wala ñu leen jege jot nañ si ñàkk seen bakkan di leen masaw bu baax baax baax parce que métti na trop balaa ngay xam ñàkk ku la jege rek dafa métti mu nekk koo xamante ne ku la sës la rek donc di profité waale di leen jaale bu baax tax si tamit di leen masaw di leen wax ñu am xolu muñ jeunes yi nag dama leen di conseiller ñu gëm seen bopp. ñu gëm seen bopp bu baax ñu xam ni tamit yàlla euh, wërsëg baa ngi fépp te yàlla mu ngi fépp donc yàgg yàgg yàgg yàgg li nga war a am ala kulli xaal koy am donc yàlla bi bi nga nee bi nga juddoo ba pare la bind lum lay kii donc sa wërsëg di nga ko jot avant ngay dee donc jaral ñuy yàkkamti donte ni sax am na ñuy dem di dem di réussir mais du ñëpp ñoo si mën a réussir donc tamit man li ma leen di conseiller mooy su fekkee dem nañ ba xam ni Sénégal gii nii arrangé tu leen nañ xool yoon bu légal ñu daal di ciy dem ñu bañ a dem ñu bañ a dem ci yoonu clandestin bi euh, aussi tamit di leen wax ni que réew mi am na liggéey soit dañoo xamul naka lañ ci jotee wala dañoo xamul naka la ñuy def ba ba am liggéey yooyu noonu mais su xaalis boobu ñuy jël di ko fay ñi ngay gis ni dañuy dem ay deux fois trois fois xaalis boobu buñ ko dajale woon mën nañ ci créer seen propre entreprise bu ndaw boo xam ne dinañ ci liggéey tout ça parce que li ñuy naan yàlla yàlla bay sa tool parce que euh, damay gis ñu ba dañuy jotee dañuy jotee dañuy jotee euh, faute bi ci gouvernement bi mais gouvernement bi li mu mën mooy créer situation boo xamante ne euh, dalay permettre à ce que nga mën a am liggéey mais mënut a jàpp loxo ku nekk jox ko liggéey te tamit fii nii képp ku bëgg ñu jàppale la il faut que tamit ñu fekk la ci war a jug nekk sur le terrain lépp lu la fay fekk mu fekk la fa mu fekk la fa nga bañ a toog nga bañ a yaa yaafus nga bañ a tayal daal ci benn côté te tamit bañ a xeeb benn liggéey parce que ñun tamit jeunes yi dañoo xaw a am problème boobu da ngay gis koo xam ne bu bu toogul ci bureau rek wala toogul foo xam ne c'est climatisé liggéey rek pour moom liggéeyul dara donc di leen wax bu leen xeeb dara euh, bu leen raté tamit benn opportunité man loolu laay conseillé ñëpp lépp loo gis ni que lii nii même bu dee ab 100 francs la lay andil 100 francs 100 francs yooyu mun na dem ba andil lu bëri ñuy bañ a viser lu bëri toujours ñuy demee tempo tempo ndànk ndànk ba nga xamante ne yàlla dinañu jox suñu wërsëg bi nga xamante ne moom lañ am. alors message bi am na solo j'espère que dina jàll bu baax a baax jeunes yi dinañ ci bàyyi xel euh, bu baax a baax. Mm-hmm. que ni immigration damay faral di ko wax ce n'est pas alors Mahawa euh, yaa ngi ci émission mais les voilées sont les plus belles. Mm-hmm. xam nga ne duñu jeexal te duñu waxtaan rek ci li nga xamante ne mooy voile. Mm-hmm. muuru mm-hmm. ak euh, voile euh, jamono yi ñu toll nii ah. parce que ba léegi bien vrai que muuru bari na mais muur yi wuute na. alors lan ngay wax surtout ñi nga xamante ne nii ba léegi dañuy dut baaraam ñi nga xamante dañuy muuru wala duñ leen yombalal yenn postes wala yenn opportunité yi duñ leen ko yombalal. Mhm. yow loolu ban gisin nga si am. waaw man moom gis-gis bu ma ci am mooy loolu moom c'est pas normal parce que en tant que bu dee ci Sénégal fii en tant que pays boo xamante ne musulman yi ñoo ëpp donc war nañ permettre nit ñi tamit euh, di di di jëf li nga xamante ne loolu la seen religion digle ak tamit loolu la seen religion jàngale donc warul euh, voile warul nekk loo xamante ne dafay dafay yàqal nit ki wala dara mais au contraire dafa waroon nekk loo xamante ne dafay ubbil nit ki mais xëy na sénégalais yi dañoo dañoo di divisé euh, di xool culture ñeneen ñoo xamante ne ñu ak ñoom loolu moo tax des fois da ngay gis ñoo xamante ne dañuy war a liggéey seen voilé yi di leen yàkkal wala ñu naa leen fii kuy voilé lii ak lii ak lii doo ko def lii ak doo ko def ñu utal leen benn limite bon damay woo ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doxalee noonu ñu dindi loolu ñu xam ne lii nii diine la loo xamante ne lu yàlla santaane la te lii dafa nekk loo xamante ne dafay aar jigéen yàlla lépp lu mu digle rek c'est parce que sa si sa baax baax la mais ko ko diggal la donc dama leen di woo à ce que ñu permettre les femmes voilées di atteindre leen parce que am nañ xel bi am nañ capacité bi te te te te mun nañ ko donc dama leen di woo à ce que voile te nekk benn barrière pour une femme voilée pour liggéey bu mu mën ci defee tout ça. xam nga ne pare gu ma yow pour pour kii waaye na dafa neex dafa neex du doy. amul benn <laughs> problème nag dañ lay bàyyi nga remercier ñi nga xam ne ñoom nga bëgg a remercier. Mhm. tàggatoo chers téléspectateurs yi mais tàggatoo bu mujj bi nag. mooy mm. mooy kii <laughs> bu mujj bi ngay may te bien vrai que bëgguñu ma mu nekk bu mujj. maa temps bi xaw nañu xoj. dëgg la dëgg la te faaw ñu euh, continuer liggéey bi. moo tax dañ lay daal di bàyyi nga daal di. waaw tout d'abord maa ngi sant sama yaay bu baax a baax a baax di ko santaat di ko sant parce que moom moo ma may euh, fit moom moom ma may courage moom moo ma may euh, doole parce que euh, bu dul kenn kenn kenn saa yu ma gestoo moom laay gis di ko remercier bu baax a baax a baax sama waa famille ñi nga xamante ne xàmmee nañ ma ci petit écran bi mënuma lim ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier di remercier aussi Zeynab Couture moo jaar fii nii waaw moom moom moo jaar fii nii di ko remercier bu baax di remercier waa Salsabil di ko teg ci loxo suñu papa Souleymane mu jaarale ko si suñu oustaz Nabi mu wàccee ko ba ci artiste bu gën a ndaw incha allah fàttewuma kenn euh, lim naa ñëpp képp ku ma limul tamit nga xam ne xel matul waaw xel matul jàppal ni lim naa la yaa ngi ci sama xel yaa ngi ci sama xol soppe yi aussi tamit di leen remercier bu baax baax baax parce que sonn nañ trop chaque fois li nga sol foo ko jëlee wala umu naa dama bëgg a mel ni yow wala umu naa lii umu naa la daf ñuy dimbali daal ba pare daf ñuy may tamit courage ñuy gën a dem di gën a liggéey di gën a góorgóorlu di ñaan yàlla tamit toujours ñoom ñii gis lu baax su ñun di ko jëriñoo voilà di la remercier yow aussi di remercier encore waa Leral TV ak waa leeral point net ñoom ñëpp ci émission bi parce que dina la permettre nga mën a wax ci ay activités yi ngay yëngu te tamit di leen wax ni que jigéen tamit jigéen ak góor ñoo yem donc bul toog di xaar wala di taal loxo pour góor yor la mais au contraire da war a sa bopp man loolu laay yàgg a gëm te noonu laay doxee duma toog di xaar kenn di ko taalal loxo lépp lu may lépp lu may jot day fekk mu ma fekk ci kaw si ci terrain bi donc voilà loolu laa leen di dénkaat daal may kontaan bu baax. solo am na solo comme ni koy waxee rek boobu ba léegi tey mhm. émission bi dafa ala daw ma ma lay xool rek. Mhm. nag euh, comme ni yoo mhm. nga. léegi man tàggu ma nga tàggu chers <laughs> téléspectateurs yi. tàggu bi amul benn problème voilà. sa cofeel ci ñun leer nañu sa mbëggeel ci ñun biir nañu jooy nga ngir ñun te gisoo ñu ngir sa yërmande ci ñun leer nañu ngir sa yërmande ci ñun leer nañu yow la yàlla buur bi tànn ngir nga leeral dëgg ak ya rasulallah ya rasulallah we were blind but now we can see we were lost but now we found a way Just because you came, ya Habibi, with love, light and forgive. With love, light and forgive. Mashallah, xoolal maa ngi ba ngay woy maa ngi am envie awu la waaye dama bañ a yàq. aw nag yow xam neex nga aw macha allah ma awoon dinaa ko yàq trop sax kon euh, voilà li mooy nekkoon. tey émission voile émission mais les voilées sont les plus belles damay faral di wax ne mais les voilées sont les plus belles les voilées sont les plus entrepreneurs les voilées sont les plus initiatrices et sont des euh, activistes donc euh, lii rek da koy wane hmm? day wane bu baax a baax li nga xamante ne nii euh, moom la émission bi di di mettre en avant mm-hmm. alors j'espère que kontaan ngeen bu baax a baax tey ci émission bi kontaan ngeen bu baax a baax ci Umu Hawa kontaan ngeen bu baax ci lim leen fi andil Euh, ubbite bi wayal nañu ki nga xamante ne mooy sangu-sang yi di euh, Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom itam la tëjee day wane rek suñu cofeel ci moom te ñu mm-hmm. koy gën di yeesal bu baax a baax a baax alors euh, kontaan nañ bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne ni yéen a nekkoon euh, di ñu suivre yéen ñi nga xamante ne ni yéen a yàgg di toog di seetaan euh, li nga xamante ne mooy leeral TV rawatina leeral ak leeral point net rawatina li nga xamante ne mooy seen émission mais les vallées sont les plus belles. leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vallée ci seen émission mais les vallées sont plus belles laata nag ñuy tàggatoo dañuy rek daal leen baaxee benn numéro boo ne bëgg nga participer ci émission bi da ngay woote ci 77 482 89 74 bu ko defee euh, ma daal di lay invité ci émission bi ma daal di ñëw euh, ñu waxtaan euh, gën a fësal li nga xamante ne nii mooy jigéen ñu muuru alors toutes les femmes sont belles mais les voilées sont les plus belles à la prochaine incha